topp moo di ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam wa laysa xayrul wara yajzi bi sayyi'atin yafu wa yasfahu safhan an musiihimi cheikh alhaaji malik radiallahu taala anhu nee na sayiduna muhammad wa laysa déet xayrul wara ki gën ñëpp yajzi mu daan fayantoo bi sayyi'atin ci lu ñaaw yonent bi boo ko defee leen lu ñaaw mu defal la lu rafet ndax amul lu ñaaw moo tax lu rafet rek la mën a defal doomu aadama yi waaw yejji bi sayi atin yaafu nu mu daan def da daan jéggale bi zahirihi ci li feeñ wa yasfahu mu daan jéggale fi batinihi ci baatina moom sayiduna muhammad saf xan aku jéggale an musiihi mi ci ñaawal yi ñu daan def di ko jëmee ci moom rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lu bon lu nekk Quraysh yi def nañ ko ko lu ñaaw lu nekk Makka def nañ ko ko génne nañ ko sànni nañ ko dugal nañ ko fu nekk waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog bi mu demee war a ba yàlla may ko doole mu def fat fatxu màkka bi mu ñëwee màkka lam ba mu dajalee waa màkka yëpp lu mu leen wax maa tazunnuuna anni faailun bikum lu ngeen foog ne moom laa leen di def lan ngeen foog lan laa leen di def ñëpp xam nañ rek ne koo tooñoon moom bu jekkoo day fayu rek loolu lañ foogoon doon ko xaar ci rasulillahi ñoom ñëpp ñu ne ko ah yaa rasulallah ñu ngi nii rek ñoo yow a bokk yow doomu ku tedd ku tedd nga doomu ku tedd nga doomu ku tedd nga yow musuñ laa xam lu dul ku la tooñ nga baal ko musuñ laa xam lu dul ci taraanga yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne izhabu fa antumu tulaqa dem leen jéggal naa leen libéré naa leen bu ko neexoon mu ray leen benn par benn bu ko neexoon mu jàpp leen otage daf leen jaam waaw waaye rek mu baal leen moom sayyiduna muhammad ngir xolam bu rafet ba dem leen jéggal naa leen waaw ñu jam ko ay xeer ba deret ji di nàcc di walwali cheikh alhaaji malik ne lax laaqa min assufaha maa laa afuuhu bihi wasaaqa adma wasaala damu lil qadami yonent bi alayhi salaatu wasalaam waa taayif boole ko xaj yaag dof ya ñu koy sànni ay xeer ba muy xëm ñu koy yëkkati muy doxat ñuy sànni ay xeer bi mu demee ba toog ci baddu ndax la jaaxle lool ba muy julli nee nañ fa la ko jinne ya fekk gëm ànd ak moom juróom-ñaari jinne yooyu junni nas yi bii yonent bi alayhi salaatu wasalaam jibril da ko fa fekk ànd ak malaaka moo xam ne moom la yàlla dénk doj yi mu ne ko yàlla kii la dénk doj yi moom laa ànd ak nee na nga jox ko ordre rek mu jël ñaari doj yi xooy xeaan ak aba xubaysi bi mu teg ko ci waa taayif ñoom ñëpp ñu dee waaw ndax liñ la def naqadina ko moom yàlla mer na ci waaw te yow rek lay xaar si ndigal ah yonent bi alayhi salaatu wasalaam tontu ko waxam ju rëy ne ko ah yàlla yónniwu ma pour may rëbb sama xeet yàlla daf maa yónni ma nekk jëmbi yërmande pour ñoom wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin waaw wallahu arsalahu lil alamina hudan wallahu arsalahu lil alamina rahmatan ismada jazlun bila wahami yàlla daf maa yónni pour ma nekk kuy orienté jaam ñi yàlla daf maa yónni pour ma nekk jëmbi yërmande kon du ma leen ñaanal yàlla mu alag leen kon jéggal naa leen mën naa am suñ gëmutit yàlla tabaraka wa taala dana def seeni njaboot wala seen njabooti njaboot seen sët sëtaat am ci koo xam ne mës naa dugg ci diina lislaam yàlla ji loolu rek jar na tax na ma jéggal leen ñoom ñëpp nee nañ malaaka mi keroog yaramam dafa daw xam nga malaaka mu yaramam di daw moom gars yi kenn mosu koo dégg malaaka moo xam ne toog rek yaramam di daw keroog la am nag malaaka mi yaramam daw mu ne ko wallahi yàlla tudd woon na la ñaari tur ci péye ba ci kaw asamaan ñun malaaka yëpp ñu fiir ci yàlla mii nag moom xanaa dafa bëgg ëppal ci waa ji nag hmm. lu ne defal na ko benn bi muy jël boppam di ko tuddee di ko ko tuddee bañ mer waaw ah, yàlla moo tudd inna allaha bi naasi la raufun rahimun yàlla moo tudd raufun rahimun jël ko tuddee ko sayyiduna muhammad moom la ko tuddee ñun malaaka yi ñoo ci mer waaye xam nañ ne nag ñaari jikko yooyu yow yella nga ko yow rasulillahi laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmuminina raufun rahim fa in tawallaw fa qul hasbiya allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sadaqa allahu alazim xoolal bil mu'minina raufur rahim yàlla dina ko tudde woon ñu mer ci mais xam nañ ne tey yow yow yaay yelloo loolu xam nañ ne yow yaay waa ji yow sayyiduna muhammad kon yonent bi jëmmi yërmande la moom rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ku am yërmande la ci xeet wi ku am ñeewante la ci xeet wi waaye ku leen masa bëgg la ku leen mas di ñaana ay intervention digganteem ak borom tabaraka wa taala caay-caay gi ñu nekkee nii népp bu ñu fi yàlla bàyyee ba léegi yonent bee tax wa ma kaana allahu li yuazibahum wa anta fihim waa makka duma ma leen duma waa Sénégal waa àdduna bi duma leen dugal dugal duma féeg yaa ngi fa féeg yaa ngi fa wa maa kaana allahu muazibahum wa hum yastaxfiruuna féeg ñi ngi jàng baatu astaxfirullah du ma leen mës duma kon loolu mbokk yi nañ ko bàyyi xel mooy ne fonk yonent bi sopp sayiduna muhammad la ko aatikatu bintu abdul muttalib waye woon rek ayna ya juuda bi dumuuy eh, ayna ya juuda bi dumuuy sawaajimi alal murtada kal badri min ali hashimin nee na sama sama ñaari bët yi tabe leen ci sotti rongañ jooy ki nga xam ne dafa bokk ci giir banu hashim di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw ay naa ya juuda bi dumuu'i sawaajimi alal murtada kal badri min ali hashimin alal murtada lil birri wa nekk na ci sayyiduna muhammad mbaax ak ragal yàlla dégg de nekk na ci sayyiduna muhammad njub nekk na ci sayyiduna muhammad mbaax nekk na ci yonent bi jub nekk na ci moom ragal yàlla nekk na ci moom maandu nekk na ci moom yamale nekk na ci moom muñ nekk na ci moom ragal yàlla nekk na ci moom tab nekk na ci moom mën a muñ nekk na ci moom baax nekk na ci moom woyof nekk na ci moom am ñeewante ak yërmande sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu la yàlla def defoon ci rasulillahi kon nag wallahi ma fi lxalqi mislu muhammadin maa ngi waat ne amul ci mbindeef yi ku mel ni sayyiduna muhammad wallahi ma fi lxalqi mislu muhammadin fi lfadli wal axlaaqi wal irfaani ngëneel ak jikko